fii ak ñaar fukki fan artisan yi nekk ci ancienne piste dañ fa war a jóge ñoom nag nee nañ yëguñu ko. waaw li ñuy wax euh, amul ndax li tax ma naan amut ña ko def concerné wuñ ñu ndax mënuñoo nekk association boo xamante ne ëpp nañ plus de 400 membres ñu war ñu fee jëlee te yëguñu ko kon loolu bu ma nee am na damay wax lu dul dëgg. ña ko engagé signe ko dem defi ko ñoo ñu la engagé mais engagé wul mécaniciens yi nga xamante ne dañoo yor ay atelier investir fi di fi liggéey loolu engagé wu leen ñam engagé nag ñooñu xëy na dem nañ ba liggéey amatuñ ci yaakaar seen espoir jeex na ñu am ay quatre-vingts ans ans dem di signer convention yoo xamante ne ngir seen intérêt personnel la tool fañ ko signé itam teguñ ko ci droit teguñ ko ci règle boo xoolee promoteur bi mu leen indil da leen naa nax suuxal leen te la ñuy def ñun xam nañ ko dinañ ko xeex politiquement dinañ ko xeex juridiquement yóbbu leen justice ak lépp pour xeex ko mu taxaw. bu dul dara sax li fi nekk ci investissement mënuñu koo toxal ci diir boobu. non du ay pàcc maanaam mbir tey boo fa nekkee yow yoro atelier yoro apprenti créer sa GIE ci turu ay nit te ñu xamuñu ko loolu agression la ak haute trahison loolu la ñu def. ñun ñi nga xamante ne ñoo fiy jeune investir ci suñu atelier yi ay 10 millions 15 millions 20 millions di fi liggéey ñun duñu nangu kenn di nu jox ay délai un mois ak i trois mois ndax ñun liñ at matériel bi ñu yor ak bagage bi ñu yor ce sont des millions milliards boo duggoon fii def investigation bi di nga gis ay milliards yoo xamante ne investir nañ ko fi li ñuy wax c'est palpable ku ko weddi boo fi ñëwee di nga ko gis so dinañ la ko won kon loolu ñun dofuñu booy nangu loolu te et aussi ñun dañoo xam droit yi ci dëkk bi fii ñu nekk état moo ko moom te état yow la ak man ak kii nit ki fu mu nekk def fa 23 ans am na droit demander bàyyi fa mu nekk te suuf si suufu état la ki koy laaj promoteur la li mu fiy def ay immobilier la ñun fii mille jeunes ñoo fi nekk ñoo xamante ne dañoo ànd ak président bi di liggéey ak moom yàqu ñu ci marché ñu fi doon def te am nañ essence am nañ ay pneu mun nañoo taal li ñuy taale ñun ñoo koy liggéeyee. te mosuñoo gis benn mécanicien ci marche wala muy wax kon loolu aussi état war naa xool dem gendarmerie Wakaam mu gëstu mécaniciens yi ci piste bi seen discipline ak seen yar ak seen engagement ci dëkk bi ñu mën a bàyyi xel loolu aussi lu am solo la. ñoom nag joxoon nañu baaraam ab pàcc bu nekk ca barab ba ne ñoom ñoo waral coow lii. ñoo ñun fii mënuñoo dem ndax ñoo ko moom dem dañ koy teg na le ndax ñun ñoo moom fii ñu nekk. maanaam pare nañ pour moom fii ñun xam nga lan lañ soxlaa état nañu jox baay on a de de des kii yoo xamante ne investissement yoo xamante ne def nañ ko ba pare ndax fii dañ ko bëgg a def la cité de l'automobile mu nekk une plateforme boo xamante ne partout en Afrique dañ koy gis comme ni président defare stade bi defaral ko mbëru lamb yi defaral étudiants yi fi ñuy jànge defaral ñëpp defal marchand ambulant yi te ñun ñi mécanicien boo gis c'est un ingénieur ndax la muy implanté ci bopp ku amut xam-xam amoo patience amoo la dignité amoo la volonté mënoo ko faa xaar ba di ko exploiter ya y a de risques qui sont dedans te gaa ngi koy jànkonte di fay ay millions ci loo xamante ne da ngay jël liggéey engagé wu ca mu am une trahison boo xamante ne am na ci ci prend tes engagement pour fay ko te état du la ci jox dara état joxuñu ndox joxuñu dara defaluñu dara te état mu ñu ngi jël ay doomam yoo xamante ne ci école yi lañ nekkoon ñu jàngal leen waroon leen a procédure normale bàyyi leen ci mbed mi ñu jël leen di leen formé waat ñu dem ba yor seeni famille di def ci biir dëkk bi kon état bu amee loolu am suuf soo xamante ne moo ko moom warul sagane ba di ko jox ay promoteur immobilier yoo xamante ne dañ koy tabax di ko luye te ñi mu koy jox am nañu ay kër amaat ay kër te yaakaar naa ne nag fi àdduna tollu tey da ngay wutal ni ñi liggéey ba pare dog wutal leen dëkkuwaay ndax liggéey ku ko am rek di nga am foo dëkk ndax di nga am foo fayee location ak lu mu cher cher fu sa salaire toll rek di nga am foo dëkk bu fekkente ne nag da wutal nit ñi foo xam ne dañ fay fanaan te amuñu fu ñuy liggéeyee loolu problème la te booy gool problème boobu mu ngi répercuté dans le monde entier les jeunes ouvriers yi nga xamante ne da ngay gis France ñu dem fekk oto wekki lépp oto ba boromam day xëy taal oto bi du tàkk te y mille de jeunes yu ne fii ku yaakaar ne li ngay tas fii du répercuté wu boo fekk la fi nga nekk rek da ngay naax sa bopp ndax xele yi bu ñu amatul fu ñuy dem gaal gi ñu ngi jël géej gi dee bi am nañu ci ragal mais duñu dem dañuy dopp oto yi foo gaare sa oto mën nañoo ñëw wekki bagage yi wekki pièces yi ndax xam nañ ko kon loolu état dañ koy alerter mu bañ a topp bandi yi nga xamante ne dañoo ne ci réew mi liggéeyuñu fu ñu gis suuf bëgg faa jëlee ña fa nekk te ñooñu nekk ay gor yoo xamante ne dañ faa samp pendant vingt-trois ans di liggéey yor ay njaboot yor ay ay élèves di leen fayal école yor ay élèves di leen fayal ay formation nekk ay père de famille fii boo demoon ba ci weef bi nekk fii vers onze heures sa day daw ña fay ñëpp yóbbul ma trois mille yóbbul ma cinq mille yóbbul ma dix mille dañ koy tas partout dans le Sénégal te loolu booy xool dépense hebdomadaire la léegi yow famille boobu nekk ci àll bi seen i doom nekk fii yaakaar ci ñoom ñuy xëy di leen yónnee loolu yow nga bëgg a xëy englobé loolu yëpp yóbbu ñooñu en chômage loolu yaakaar naa une état normal du seetaan ñuy def population am noonu bu ñu sañoon ñu jox leen ko bàyyi ndax dañ faa bëgg samp ab cité de l'automobile la. non ñun am nañ doole xam nga lan mooy doole la jeunesse nit ki boo bëgg di doxal dëgg gis nga même dans les banques là boo demoon tey maag yow tey jii nii ci à l'âge de 60 ans j'ai l'âge de 50 ans bu ñuy leble xaalis duñ la ko lebal dee yàllaa ko yor waaye la priorité c'est l'enfant ce sont les jeunes kon ñun réew mi ñoo ko moom ñun ñoo koy doxal ànd ko ak le président de la république ndax mënut a dem sans ñun génn le secteur informel c' vingt quinze pour de la population sénégalaise. ñun boobu no maanaam boo booloo bi booloo nañu. non am na fi hmm. booloo am na fi ndax bu fekkente ne da ngay xool une minorité dans la majorité ça n' existe pas dans le monde hmm. mais y' a une minorité boo xamante ne moo fi nekk di ñu xajamal mais gis nga tey jii nii majorité bi bu la neexoon tey nga def. dans le tour dans dans l'atelier nga xool nga def un sondage koo gis nga ne ko dangaa bëgg a jóge fii wala bëggoo fee jógee doo am ku la ne dama fee bëgg a jógee partout nag laa la wax doo am benn nit boo xamante ne da lay naan dama fee bëgg a jógee kon yaa am na am na bu ñu amul 100 pour cent on a 98 pour cent yoo xamante ne li leen gënal mooy ñu defar fii jox leen ko ñu def ko un cité de l'automobile boo xamante ne ça sera une vision partout dans le monde boo xamante ne képp koo xamante ne paan nga Dakar di nga xam ne man su ma demee Védène même bu ma yoroon xaama sax bu ma fa demee am na mécanicien boo xamante ne dina am satisfaction ci moom te ñun loolu la ñu ñaan président de la République le monde avance am na moto oto yoo xamante ne dañoo am ay hybride am beneen moteur thermique am na oto yoo xamante d'ici 2024 2025 ay oto électronique kese lay doon mais qu'est-ce que l'État a préparé pour ces véhicules qu'est-ce que l'État a préparé pour ses fils qu'est-ce que l'État a préparé pour oto yooyu bu ñu wàccee fii ndax dañ leen di wàcce ci port bi ba pare buñ paanee ñu lonkaat leen teg leen ci bateau yi ñu delluwaat France wala Europe pour ñu defar leen loolu yëpp ay objectif la yoo xamante ne il est temps le président de la République liggéey na réew mi c'est un miroir mais aussi bu ci boolee la bellicité de l'automobile bi nga xamante ne ñun ñoo ko defar muy plan def ko ba 3D mu xool ko dimbali ñu ci day am wooy woo xamante ne fu mu dem ci àdduna mën nañ ko cee naw ndax moom dem na ba Dubaï mu visiter la cité de l'automobile bi ne foofu mais bi mu ñëwee fi il a des appréciations moo taxoon mu créer le Zampa mais le Zampa c'est loin to mécaniciens yi xejuñu fa moom suuf si moo ko moom c'est le président de la République par décret nañu ko jox ñun bëgguñu kenn koo xamante dañuy financer on a des financements on peut financer on peut faire tout waaw loolu lañ koy ñaan merci beaucoup ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Leral TV di wax biraayam Touré aussi na jàpp ci combat bi moog ñoom Mansour Diop ndax ba ñuy nekk fële dañ leen di topp boo fekk leen fële kon aussi nañ jàpp ci kombaa bi yéen yéen a ñu mën a dimbali yéen ay ndaw ngeen ñun ay ndaw lañu man gisuma journaliste su mag bu fi ñëw te yéen ñi ngeen di fekk fii seeni morom lañ kon yéen da a bokk ci kombaa bi bëgg nañu itam ñu dem bu am ay yu mag yoo xamante ne. yéen dañ di ñëw di couvrir loolu ndax ñun amuñu jot wax amuñu dara ñun toujours on est la conscience pour l'intelligence yokk sunu xam-xam pour mën a développer le pays. association des artisans de l'ancienne piste tàllal nañu loxo njiiti réew mii ngir mu àddu ci coow lii balaa ëpp fii.